doon si rek moom la bëgg naa am war naa doy lépp jàpp na ne état moo responsable te defu ko kon loolu bu état bari ko tax ñu jëlee fi Mansour Faye indi fi maanaam ki nga xamante mooy sëñ Mbaye Thiam te sëñ Mbaye Thiam gën a yées foofu Mansour Faye jàpp naa ne loolu jàmmani jàngoro maanaam jàngoro loo xamante ni mënut a denc si nguur gi léegi il faut que ñoom ñu càmbar liñ fi jot damuy audit ko nga xam moom la war def balaa déwén ñu mën a wàcc si seen seen matuwaay ànd ak taalibe yi ndax sëriñ bi tamit bi nga xamante ni wax naa ko bi mu jógee ensemble mënu ma sëriñ Tuubaa am na si yow ndam wax naa ko solution yi nga xam jàpp naan moo koy faj benn bu njëkk mooy ñun taalibe yi mu sant ñu ñu dem Touba Bogo gas fa ay forage dem Sadio gas fa forage dem Déale gas fa yi ñu dugg si biir dëkk bi ñun taalibe yi ñu jënd ay tiwo ñu accompagne ñu ndax Touba am na ay boroomi xam-xam yoo xam ne mën nañoo seere ndox mi mais ñu bañ ko bàyyi état te buñ ko bàyyi état Touba day fay nangu loolu am man maay Seex